kon Tëngéej moom kat seen match bi kat programme ne ko sa samedi 7 août à partir de 16h GMT kon ñu souhaité leen bonne chance. Michael ba mu ñëwee mën naa ne mu jógee ci liir mooy jeux olympique gàddu médaille de bronze wala boog médaille d' argent bi jàppale club boobee teeru ko nag ak gàttu boobee voilà di ko sargal. kon moom kat àdduna ak conférence de presse lim fësal mooy que voilà safoon na lool joueur France yem daan nañ doxal ci benn lu ci mën ni Franck Ribéry ba tànnkat balaa lu nu mel mën naa nekkat ci seen ay tànk nag la bëgg topp et nag xam na yenn jour yi nga xam ne bokk ak na ñoom équipe ku ci mën a Jamal Musiala bi ñoom ñaar doxoon nañ ci Chelsea bañ gën nekk ay tuut tànk des De bi moom kat ci bëgg-bëggam fësal na ko de mooy que dafa bëgg dina dafa bëgg dina teg mag Paris Saint-Germain nag loolee nag mooy tax mu amal ay recrutement yu bëri. benn pasteur ci nigérien moom nag mi ngi artu kookee di Victor Osimhen mu ngi koy digal à ce que bu mu rejoindre benn yoon foofu ci Chelsea ndax xam ngeen ne Chelsea nag ñu i jéego bu ko ko dalal deal bi nga xam ne fësal naa ko nag mooy que Chelsea dafa bëgg a jébbal waa Napoli kookee di Lukaku bu ko defee mu mën a yomba transfert bu nigérien boobee waaye pasteur bii ñoom ñi nga am nañ doole lool ca dëkk boobee balaa xam naa da ko seetal ay mbiram nekk kat bul utile ci Chelsea waaye nag balaa xibaar bu xaw a xoromu la Fede Valverde mi ngi rendu hommage kookee di Toni Kroos ginnaaw gi kat ba mu lakkee ci ak seen joor bi ñu amoon contre Atalanta xam ngeen ne moo njëkk dugal la première bi bi kon célébration boobee balaa da ko doon jagleel kookee di Toni Kroos ndax xam ngeen ne numéro bii nga xam ne balaa allemand boobee daan na ko takk ci Real moom lañ ko ko jébbal kon moom nag mi ngi am yaakaar balaa ginnaaw gi demam boobee naam manqué na leen te waaye mi ngi am yaakaar que dinañ continuer yoon di gàddu ay raaya ci Real Dani Olmo bi ñu ngi lu toujours bu ko defee ñu mën ko inscrire laata seen jonte contre France contre joueur Barcelone bobé wala boog seen recrue bu bees moom kat bëgg bëgg fësal na ko de bëgg na fa dund vraiment ay moment yu historique ak mayo boobee bi nga xam ne balaa rêve la woon pour moom. CD Milan mujj na amal déggoo di ak club boobee di Monaco jàpp leen de muy soxandikoo ci Fabrizio Romano club Lombard boobee ñu gën leen xam ci Rossoneri mujjee nañ fay lu mat vingt cinq millions dollars ak i mbaqus. kon ci na san français boobee nag bu fa yi bu fa yeggee jàll visite médicale am bu lépp yembee nag nag. contrat de contrat bu ñeenti at benn bi nag mën a doon option am mooy que mën a dem ba juróomi at foofee ci foofee ci États-Unis ñu ngi fësal ci kayitu xibaar yi club bi nga xam mooy la Galaxy fësal nañ signature bu ancien joueur wala boog star bu boppamul bi yem na yàgg na fa lool jàppale mooy Marco Reus doomu almaa boobee nag ginnaaw ba mu jàllee visite médicale ñu ngi fësal ci kayitu xibaar yi de xaatim na contrat buy dem ba 2026 Kylian Mbappé ginnaaw gi ba mu gàddoo raay mu njëkk ak waa Real de Madrid mu ne nag ku wax Real nag wax raaya ba tax na kontaan na lool kan mu tàmbali ak nu mel jàpp leen bu baax nag pour moom nag am na li des ba tax na kat voilà nag dina jointi mbir yooyee bu ko defee vraiment nag mu indil ndimbalkat clubam bi nga xam ne voilà benn rêve la pour moom et que mu tàmbalee ko ak raaya vraiment c'est incroyable bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu moom daana doxal ca Paris kon taskatu xibaaru français yi nga xam ne xam ngeen ñoom dañoo ñembe détail de doon nañ posé ko kii de Luis Enrique di technicien espagnol boobee di course bu Paris voilà su au sujet de Kylian Mbappé nag mu ne xamoon naa ne di ngeen ma laajte question boobee waaye li leer ba leer mu ne moom amul benn jafe-jafe kii mooy Kylian Mbappé ba tax na vraiment nag mu koy souhaiter le meilleur ak clubam boobee de même que rakkam boobee di Ethan Mbappé bi ma nga doxal ca li nga xam ne nag moom la leen mën a wax mooy que mu ngi leen di ñaanal jàmm. doomu brésilien bi mooy Evan Nilsson dafay quitté FC Porto pour Bournemouth kon club anglais xam nga ne ñoom am nañ koppar ndax fay nañ club portugais boobee lu mat lu mat de 47 millions d'euros et que ci noonee voilà ñoom dinañ ci dëxiñ loolee di clause de revente bés bu ñu ko jaayatee beneen club bu ñu côté ji Fabrizio Romano dinañ ci am lu mat 10 pour cent voilà seen attaquant boobee bi nga xam ne bàyyi na ko mu utali ci English Premier League bi. officiel na ko kii di Sandro Tonali xam ngeen ne li nga xam ne moo moo tax ñu teg koy daan wàllum carte xaalis la laale kon moom voilà nag app bi xam ne daan boobee voilà tegoon nañ ko maanaam jeex na kon ñi ngi fësal ne moom kat dina noppee doxal voilà à partir à partir de 28 août ginnaaw gi moom toogee lu mat fukki weer voilà nag doxalul moom mi nga xam ne moom mooy doomu doomu italien boobee waaye loolu dina servir leçon nag pour moom ak yeneen joueurs yi nga xam ne ngi laale ci mbir boobee bi xam ne dara baaxu si doomu Croate bi nga ne mooy Marcelo Brozovic ñu ngi fësal ci kayitu xibaar yi moom génn lii mooy sa retraite international ak waa Croatie waaye mi ngi wéyal ak clubam foofee ci Al Nassr Marseille United jàppale ñu ngi taaxilu di xaar ay offre yu officiel ci doomu danuwaa biir mooy Christian Eriksen Sky Sports News moo ko fësal Calvin bi léegi lépp dina yemb dina utile ci club bi biir mooy Ipswich Town kon jàpp leen diggu am na ci ñaari club yooyu mooy que Man City balaa da koy mujj jébbal waaye Steve Town transfert boobee nag balaa du luñ leen ko jaay rek waaye dañ leen ko abal nag waaye amul benn option d'achat buñ soxandikoo ci Fabrizio Romano app bu jeexee dina delluwaat ci club bu Sky Blues boobee. ñu delluwaat ci Kylian Mbappé moom am na mbégte lool mu ne ak kenn mooy Vinicius Junior di doxal ak ku ci mën Rodrigo vraiment nag lu yomb la ndax vraiment ay joueurs yu am dayo la ba tax na am na mbégtekat di joué ak ñoom rawatina ko kay di Bellingham. technicien wala boog entraîneur argentin bi nga xam ne moo yoroon Chelsea mu safoo loolu kookee di Nicolas Jackson xam ngeen ko bu baax muy Mauricio Pochettino bu ñu soxandikoo de ci David Ornstein moom mooy yor balaa nag États-Unis mooy que mooy doon seen sélectionneur li nga xam ne moom lañ xaate mooy que dañuy dem nag. ba mondial bi ñoo ko war a dalloo atum 2026 voilà nag mu joyante ay mbir bu ko defee kat ñu mën am taxawaay lool ci mondial bi nga xam ne vraiment nag am nañ ci yaakaar que dinañu romb huitième de finale benn fa lañ leen éliminé woon boo leen fàttaliku Mundo Deportivo moo fësaloon xibaar bi waajur bu góor ci kii nga ne mooy Lamine Yamal mu iyoo ci Mounir Nasraoui jàpp leen bu baax doomu marocain boobee nag ay defkatu ñaawte ñoo ko bëggoon boomu waaye nag heureusement ba nañ ko poignardé dong ci ndigg la loolee lañ fësal nag kon loolee mi ngi am ci benn ville catalane bu yoo ci Matador ce mercredi 14 août balaa la defkatu ñaawteef yooyu amel jëf ju ñu mel waaye xibaar boobee Mundo Deportivo moo ko fësal waaye relevoon nag indi na nag ay yeneen xibaar dolli ko ci mooy que kat waajur bu góor ci Lamine Yamal moo mais muy iyoo ci Mounir Nasraoui ñu ngi fësal ne voilà nag nekkatul en danger mooy que voilà il est de danger loolee la fësal ba tax nag ginnaaw gi xew-xew boobee de moom amee Barça ak seen jour boobee di Lamine Yamal mën naa ne voilà seeti nañ ko nag ci hôpital bi yam ne fara woon waaye li leer ba leer mooy que kat police bu Espagne ca Barça ñu ngi fësal ne. arrêté nañ ci defkatu ñaawteef yooyu ñetti nag ñi nga xam ne bokk na ci mbir mi waaye am na ñeneen ñi nga xam ñu ngi leen di wër Kéléma Lenguére li ñu fose mooy que su dee conditions personnelles amal na déggoo club espagnol boobu di Atlético Madrid te ci des ba des bu ñu soxandikoo ci Santi Aounar de Foot Mercato mooy que kat. ñu mën a ama déggoo ak Barça bi nga xam ne balaa buñ sañoon nag balaa dañ koy dañ koy bàyyi mu dem waaye xam ngeen ne moom la ma xaatim ca contrat fësaloon naa ko ci xibaar yu weesu duñ gën a dugg ci ay at salaire-am dafay gën a takku kon ci doom français moom kat loolu la comprendre et que actuellement mënuñu dakkal bi ndax saa yi bi ñu ko dina ko li nga xam ne moom lañ ko desel ba tax na nag li ngeen xam ne mën ngeen ko jàpp ba jàmmooy Atlético Madrid balaa ñoo ci gën a yëngu pour mën koo dalal Bruno Fernandes doomu portugais boobe élément kele la ci ci dispositif tactique bu Erik ten Hag ñu ngi fësal leadership am ak qualité bi nga xam ne am na ko xarañte fa moo koy may nag club boobu am wóolute nag ca Manchester United mu xaatim nag contrat buy dem ba 2027 doomu malien bi nga xam ne moom mooy Ibissouma xam ngeen ne aussi benn joueur bu bu am solo la ci club boobu di Tottenham waaye nag am na yenn erreur yi boo ko defee voilà ñoom dañu xool loole dañuy teg ay daan yu diis jàpp leen bu baax moom nag club bam boobee di Tottenham dañ ko suspendre nag balaa seen match bi nga xam ne moom lañ war a amal ci altine bi pour ndorteel seen English Premier League ci première journée bi ñu ngi fësal contre Leicester lay am wala boog moom lañuy jàmmar lool jàpp seen premier match jàpp leen bu baax moom nag li nga xam ne nag moom moo ko dugal mooy que dafa fësal nag benn vidéo wala boog benn post muy muy muy utiliser yenn substance yi nga xam ne voilà nag mën na nag sportif voilà nag dëppawul muy benn gaz Ileran mën naa ne balaa noonu lañ ko mën a waxee benn gaz bi xam ne balaa nag baaxul dara ci sportif kon clubam boobee loolu la gis nag bataana tax na nag mu ko teg koy daan kon loolee li muy gën a firnde mooy que réseaux sociaux yi jour yi nag mën naa ne nag mënu ñàkk ci dund de waaye nañ koy moytu bu baax a baax ak li nga xam ne moom moom moom ngay fësal ndax mën naa ne ak une seconde près voilà ñëpp buñ partagé ñëpp jot ci ba tax na clubam boobee de Tottenham ko jëf ji ñu mel. ñu bëri samp laaj suñu prochain rassemblement bi nga xam ne au mois de septembre lay doon ñu war amal jongante contre pays bi nga mooy Burkina Faso loolee dafay soxool voilà segg bi pour jëm ci li nga mooy kan benn morog moo ko war a kon ay jeune talent la yi nga xam ne vraiment nag ñu wara war a bàyyi xel la et que espéro que DTN bi nga xam ne Mar ok di ali sañu ci liggéey bu baax a baax voilà ñu mën cee lim zor bu am fukkeet ak juróom-ñett boobee di Pape Daouda Diongo ma nga ca Strasbourg naam saison bi tàmbalee gudde waaye jour la biim ñu koy déppale kooku di Busquets ñu ñaanal ko nag jàmm mu def saison bu exceptionnel Assane Diaw excentré ma nga ca Betis kooku biir mooy champion ak ndaw yu waa Roxaay mu am aussi 18 ans. Nobel Mendy arrière gauche ma nga ca Betis Séville moom nag fasaloon nga ci këru xibaar dafa am ay gaañu gaañu waaye aussi ku ñuy bàyyi xel la El Hadji Malick Diouf arrière gauche ma nga ca Slavia Prague ak jàlloo rem de jàpp leen bu baax ñetti wala boog ñaari bii benn passif kon kookee aussi ku ñuy bay xel la de ko ku ci mën ne Elie Camara Bian ma nga ca Standard de Liège yàgg nañ ko fasal nag benn option Aliou Cissé yàgg na ko wax ci làmmiñam nag benn zone la bi ñu koy bàyyi xel bu baax a baax ba na kat balaa ndaw yii kat. il se pourrait que mën nañ leen wóolu nag mën nañ leen wóolu waaye nag euh, bu doonee au mois de septembre waaye ci kaw ñu def ay performance nag dina doon lu mucc ayib ndax sa ëllëgkat li nga koy waajal surtout ak ndaw ñi cant ak ngërëm ñeel na leen dinañ jëfal ci yeneen xibaar de le sport 221